ayca bàkk ba jib na générique bi départ na jàngat làmb tàmbali na bàyyi jiili ak sama papa bi nga xamante ne <laughs> namm laa ko loolu buy père Birahim Ndiaye ma koy jaajëfal bu baax a baax a baax di ko ñaanal jàmm fu mu mën a nekk yàlla defal ko jàmm defal ko wér ndax moom suma papa la bu ñu nee jàngat làmb sax xel day dem ci moom mbokk yi ñu leen di jaajëfal bu baax fu waaye mën a nekk ci réew mi ak bitim réew tey safoo li nga xamante ni mooy wasaare làmb ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax di kontaan ci ànd bu rafet bi nga xamante ni yéen a ngi koy ànd ak wasaare làmb gis ngeen bërki démb li nga xamante ni jot nañ leen ko jëlee ci terrain gaal gi jëlal leen li nga xamante ni moo jëm ci stade Jom Iba Mar ñuy félicité waat bu baax a baax a baax encore une fois waa Rent DKR production di féliciter Alain Jimbo Pape Sarr vraiment liggéey bi rafet na vraiment démb képp ku dugg ci stade bi euh, gis nañ ambiance gis nañ mbooloo mu bari boo xamante ni mobilisé wu nañ ñëw ci làmb ji ginnaaw loolu xam naa du du ñàkk ñu dégtal leen ko dem arène nationale wan leen dugg ci mbëri mosal leen tuuti bàkk su ko defee ñu dellu siwaat ay go biisu biisu bandi la ndeysaan xaaral dama yéeg Adama taxal foofu da ngeen ñëw indi mbaar de waa géej waa géej la loolu am ci moom yaakaar rek ba pare gëm ko wóolu ko ndax moom càmbaar la champion la maa les mooy suñu vainqueur suñu lépp moom la benn bu ko ñëwee dañoo ànd ak conférence ñu ngi ñaan yàlla may ñu ndam ci barke Seydina Muhammad xeex bëre lu bëri ñu jóg dëgg la ñëpp nee nañ ah, maa leen jaxatoo la comme ni ko tubaab bi waxee rek la civilisation augmente la femme bi moo jóge géejawaay ànd ak mbooloo mu bari bu ziar naa la. bis bi tay lu mu laaj. bis bi tay lu mu laaj muy maanaam. bakkan si biir géew la. bakkan bakkan si biir géew. musoo kaa gis. déedéet mooy am tey nag. lu tax bakkan si biir géew. kii dama koy duma daan ko. dem États-Unis entraîné pour ñeneen ñi bu yan booy bëri waxe yi. mais dañu wax ñu bari dañoo wax naan Malick Ndiaye du bëre tay suba dina bëre tay dina bëre. bay bi nga ñëw ba. daf ma doon piégé. daf ma doon piégé ma jëli ko bu yàgg. wane ko waaju ma. mais abon simee ko sànq gis na ma. dama liggéey dama pare. ama seet si ñëw rek loolu. ndeysaan ama seet. ama siyaar naa. wasaare sama gars bi nga wax noonu. sant Seydou Fall. mel ni gis naa ama seen bi ma bëggoon gis. waaw sant yàlla bu baax ñaan yàlla suñu borom may ñu ndam incha allah. ndeysaan. cey làmb maar de nuy naa. fay naa la fay waaje. waaw rek. incha allah loolu la ñuy ñaan na teg fii na samp daa jox bis bi cër bi mu laaj. bis bi adversaire bee toll noonu wala bis bee laaj. bis baa ni toll bis baa ni toll waaw. wàllu wàllu gis nga mobilisation bi géejawaay gi yëpp def. ngir ñëw ànd ak yow. mbaa loolu dëgg waaw non non yàlla tere. fi ñu amee pression si làmb mosuñu ko am. déedéet xalaatuñ ko sax. ndax dafa am boo xamante war na faa tontu ci làmb te bu yow yaa koy. rek. xam abit ne prip waaw nee naa ko est que ñeme ngaa taxaw xeex ak Pape Yékini mu ne moom bu mu ci baax la yow yaay choisir xeex wala ko du ko yàq nga favori dëgg la lamb ji yenn saa yi ah. la ma ah. pour ñibbi waaw waxu biir la waxu biir la tey da ngaa fas yéene xeex ak ki nga xamante mooy Marley est ce que xeex boobu da nga non moom mooy xool lu ko neex lu ko neex lu mu andi ma andi loolu des loolu dara waaw. nee na moom pare na ci lépp loo xoo mu. waaw ah, kon yàlla baax na yàlla ñu lañu woote jàmm. xamoon diggante 2011 2010 est-ce ko gisaat. nekkul boobu ne ba tey. jaajëfalaat bu baax a baax a baax aadama euh, la cadre des cadres sama xarit bi nga xamante ne ànd nañ fu ne vraiment gis ngeen li nga xamante ne jot nañ leen ko woon ci ambiance muy wane ni làmb saa su ne rek jeunesse bi ñu ngi koy gën a bëgg ñu ngi gën a am yaakaar ci làmb ñu ngi jàpp ne làmb fi mënoon toll 2012 2011 ba tey làmb mun na faa toll. kon ñu gën ci jàppaat di lancer appel président de la république mu xool sport bi doon na sport boo xamante ne ndaw yi dañ koo bëgg te ñu ci bari ci banlieue bi la ñuy jóge ñu ci bari ci làmb la ñu yaakaar ñu ci bari ci làmb lañu ñu mën a. gagné seen vie kon ñooñu noonu xale yooyu lépp loo xamante ne état mën na ci jàpp na ci jàpp parce que xale yi tamit am na leneen loo xamante ni mënoon nañ koo def waaye ñu ngi ci làmb ba tey di ci dundee yaakaar kon loolu euh, benn parenthèse la woon rek boo xamante ni dañuy ñëw ci làmb yi gis nañ fa ay combat yoo xamante ni combat yu neex la Malick Ndiaye 37 fou <laughs> ak Bou Siteu bu nekk combat boo xamante ne vraiment combat bu neex la. ñoom ñaar ku ci nekk wane na boppam Bou Siteu daan na Malick Ndiaye mais li ma ci gën a métti mooy koŋ bi mu ko koŋ Bou Siteu ba baddi la quoi dañuy dem léegi arène nationale wala leen combat boobu su ko defee ñu dellu siwaat ma expliquer leen combat bi lan moo ci gën a neex ñu dem ñëw. Siteu daa Malick Ndiaye yor na mbat bu garaaw Ousseyn. Eh, waaye champion bu garaaw. es ce que moo ngi ci moom ba léegi. ah nañ xool. waaye en daal ñoom ñaar ñaari pànk ñooy bëre. ñaar ñu pànk ñooy laale. kii pànk la kii pangalang la. kan mooy pànk. <laughs> Malick Ndiaye mooy pànk bu Siteu mooy pangalang bi. <laughs> waaw Ousseyn luy différence pànk ak pangalang. xeex eh, góor mu daanu dina am. combat bi boo xamee góor mu daanu dina xam nga am na ñoo xamante ne bu ñuy dox bàyyi jile dañuy bondé mais am na ñoo xam ne bu ñuy dox dañuy bondé boole koog tëb loolu mooy pangalang bi. Ah, ndeysaan. comme Bou Siteu day bondé bu may tëb. di tëb maa ngi day bondé. ah. ndeysaan laa bëggee eh, njaabu golo. Malick Ndiaye ma ne ma golo ma. Ah, xam nga ni laa bu ji mënu woon ñàkk am use. mukk mukk mukk baa bu Siteu Malick Ndiaye 37. combat bi sax wowul gaaw abi bàyyi leen. abi baa wax ak ñoom waaye gëm naa ne mbokk yi li mu leen wax mooy bëre leen. abi bi su waat na ci diggante Malick Ndiaye 37 fu. bu Siteu mbokk yi moo takk téere yi ci bopp bi. takk moosu bu xonk bi ci dënd bi. daw na yooru ma bu. yooru na yooru na yooru na doon xeex ñoom ñaar. parce que ñoom ñaar jàppante nañ. bu Siteu Malick Ndiaye ngi dóor ci suuf. ñu baax na. baaxul baaxul. Ah. Oh, Bou Siteu. daan na ko. Bou daan na Malick Ndiaye 37 daan na ko ba pare dóor ko. daan na daan na ko dóor ko. Eh, Bou Siteu. Bou Siteu daan na ko dóor ko. gaay gis ngeen Malick Ndiaye 37 fu loolu buusi euh, buusi te daanee ko mais Malick Ndiaye gis nañ ci làmb ji que ni vraiment mënul ñàkk boo toogee ay at bëriwoo boo ñëwee ci làmb c'est normal nga perte repère perte na repère mais buusi mu ngi woon ci biir combat bi tey bu ñu nee mbër chaque fois lim lay wax ci làmb signature contrat ak lim lay wax ci bis ba du benn. boo xoolee Bou jox na cër bi nga xamante ni moom la war a jox Malick Ndiaye mais Malick Ndiaye dafa def erreur rek ci biir bërëbi mooy laata ñuy songoo ñoom ñaar gis nañ ni benn moment Malick Ndiaye sonn na te mënatul jàpp mu waral mu jàpp ñaari oomam yi noonu euh, sëgg ngay xam ni carrément mu ngi wane mu ngi wane benn signe de fatigue boo xamante ni mu ngi woon ci moom ñuy félicité waat Bou bu baax a baax di ko wax xale nga boo jugee géejawaay dafay jóg mbooloo dañuy topp sa ginnaaw nga gën a defaraat entourage bi gën a liggéeyaat ci sa yaram parce que vraiment boo bëggee toll fenn ci làmb faw nga gën a yokkuwaat corpulence bi parce que làmb am nañ ci yow yaakaar parce que puisque booy ñëw ci làmb di ànd ak mbooloo rek am na ci loo xamante ni da nga leen ciy bàyyi xel bu baax a baax gannaaw loolu am na ci combat boo xamante ni combat bu neex a neex la mu dox ci diggante bébé guy gi ak Pokola <laughs> mu nekk combat boo xamante ni combat bu leex la dañuy dem ci biir wan leen combat Bébé Gouy Gui Pokola ñu ñëwaat ay ca gars ñu dem ñoom. wàccee na garde bi. Ndeysaan Bébé Gouy Gui Pokola. noo gisee combat bi. waa ji li bi yàgg na mais xale yi fi mu toll nii dañuy dem yee fi toll nii dañuy dem yee ndax boo xoolee kii di Pokola moo ci quatre avertissement fi mu toll nii kii di guy gi fi mu toll dafa war a temps rek bu ko gérer amaana bu génnaatee sax bu ñëwee ñu jox ko ndam moo tax fi mu toll nii combat calcul la boo xoolee day day day cokkaas taxaw di xaar Pokola def erreur mu juumloo ko daan ko Baye ni la waroon bëree combat. non non ndox du bàyyi yoonu Baye Djily Pokola ñëpp nañ ko bëri ak mais des fois xale dañuy ñëw ba ci biir di bàyyante xel woo ko woon xel dafa war a ñëw rek appliquer li nga xamante ni moom la yàgg def di ci am ndam bu ko defee rek yàlla mën na dogal mu am ci ndam mais dafa ñëw sóoraale ki nga xamante ni mooy guy gi ba combat bi yegg fii fi mu toll nag li ko war mooy mu gérer ko am defet wala mu profité bëree bu ko yàlla may ndam mu xam ne noonu la su temps bi jeexee fii wala su génnaatee dañuy jox ba tey ndox ci ak bébé guy gi ndaysaan Pokola bébé guy gi ñoom ñaari xale yaa ngi noonu ndaysaan Pokola bébé guy gi bébé guy gi dóoraat na dóor na bébé guy gi mu ngi dóor bébé guy gi mu ngi dóor ndaysaan bébé guy gi mu ngi dóor ndeysaan bébé guy gi mu ngi dóor uppercut déet waay est-ce que xam nga ne Pokola daa sol fi da koy daan daan na ko bébé guy gi daan na Pokola bébé guy gi daan na ko bébé guy gi daan na ko ah xoolal la muy def xoolal fecc wa waaye bébé guy gi daan na xoolal am na seen Adama Adama am na seen kontaan na am na seen a ngi daw Eumeu Sène mu ngi daw doomam la ndeysaan doomam la ndeysaan doomam la ndeysaan doomam la ndeysaan doomam la ndeysaan doomam gis ngeen bébé guy gi ak pokola bébé guy gi daan na pokola bébé guy gi dafa ñëw indi ni ñu ko xamee woon mooy indi na bëre indi na xeex Pokola moom la moo indi li nga xamante ni sentiruñ ko woon ci moom parce que man yaakaaroon naa ne bu arbitre ne day xeexe Bébé Guy gi agressé ko ba am li mu bëgg parce que combat yu bari ci kaawa lay mujj lan moo tax Pokola xeexul dañ ko tere xeex wala ñi ko indi ñoo ko téye Pokola mbër buy bëree du bàyyi mëninam ndax wolof moo ne lu mag doon def ba dee bu dekkee ba ko kenn du bàyyi sa foor yow ñëpp xam nañ la ci xeex kon bi nga ñëwee mënoon nga dëggal sa bopp saxal sa bopp ci xeex bi ñëwaat ci làmb defet bi nag du dara defet moom day defar mbër mën nga àndaat ak say mbokk àndaat ak say xarit àndaat ak say njagañaali prochain combat dinañ xam ba xam defet bi nga am metti na la wala déet may félicité bu baax bébé guy gi dem naa jëli ko avant combat bi waaye lam ma waxoon yëpp mooy dafa bëgg combat bi combat bi am na lu mu ko jaral ba moo waral bi mu ñëwee ci làmb ji wane na jom wane na njàmbaar wane na ful la wane na fayda te làmb looloo ko yor làmb bu ci jom njàmbaar fulla ak fayda jugee rek dara desatu ci parce que yaakaar naa xare la ñaari jàmbaar dugg ci diggi géew di weccantey kurpañ ba kenn am ndam kenn ki ñibbi ki am ndam du njàmbaaram ndimbalu suñu borom la mais ki ñàkk tamit du yaafusam ndax ñoom ñaar ñëpp ñoo préparé combat bi ma leen félicité bu baax a baax a baax xam naa dañuy mujj ci ñaari combat yi rek euh, dem ci komba xale bi nga xamante ni mooy euh, sama combat bi eh fàtte woon naa ko guy gi euh, liiru jaan yaag nu mu tuddati yaag sama waaj yaaw jaal combat la boo xamante ni yaaw jaal mu lay dëkk mais yooyu yëpp ci làmb la bokk daa nekk ci luy defar làmb bokk na ci luy neexal làmb yaayu jaal day dëkk eh, liiru jaan bëgg a bëreek moom liiru jaan wan nañ ko du ma sa moroom kon dañuy dem ci combat bi ñëw ci beneen combat bi ci topp dox ci diggante Adama juuf ak wuli wuliwaat ñu dem te ñëw ay ca wuli bañ na laa ilaha illallah wuli Adama Diouf yaa ngi xeex wuli Adama Diouf daan na ko Adama Diouf daan na wuli Adama Diouf daan na wuli Adama Diouf daan na wuli hee Adama Diouf daan na ko wuli daanu na jël bu ko bett wuli xeex na xeex bu metti waaye wuli xeex na xeex bu metti wuli xeex Adama Diouf wuli Adama Diouf wuli Adama Diouf Wulli. Euh, may félicité waat bu baax aadama Diouf di encouragé Wulli Wulli wane nga ni làmb ba tey yaa ngi ci dese dara wane nga ni làmb ba tey mun nga cee téye lu baree bare malgré nag boo nekkee ci làmb ji mu ngi neex benn moment ñëw nga ci man may reporté combat Malick Ndiaye 37 fu ak Bou Siteu nga ànd ceeg man di reporté combat boobu mu nekk loo xamante ne yaa ngi concentré wu ci komba bi. mais Adama juuf ñëpp dañu xamoon ni forum mooy jël sa tànk ndax moom tôt ou tard day daw paquete la ci paquete boobu nag am na ci ñu ci xool euh, gis ni xeex nga mais Adama Diouf daan na la ñu lay encouragé waat bu baax di félicité Adama Diouf di xam ni moom ndaanaan la ci làmb parce que buy dem ci làmb plus de 64 litres di bindu ngay bëre di leen daan. di leen daan di leen daan ba jël li nga xamante ne mooy compétition bi yaakaar naa ne bëriwul li warulaa mën a jaaxal kon ñu koy félicité waat bu baax a baax a baax mbokk yi jàngat bi day gën a yaatu dañ koy gën a yaa ma gën a xam <laughs> léegi su ko defee dañuy dem yóbbu ci combat bi nga xam ne moo dox ci diggante Obali ak Pape Yékini su ko defee ñu ñëwaat ci combat bi ay ca bi su la waat na ci diggante Pape Obali ñoom ñaar droite Pape Yékini à gauche mais Pape Yékini mbokk yi bàyyi jigéen dafa mel ni ko xam Ibou parce que xam dañuy xeex boo xoolee fa suul tànkam rek di lewaatoo di ko déglu di xool moom moom Ibou la andi tey baat ak tontu la Ibou Ndiaye da ko bëgg a woo xeex daw jàppante bëre bi te Pape Yékini bëggul daa bëgg a xeex bul xeex ni muy xeexee baax na da lay jëli daan daan na la daan na la Ibou Ndiaye daan na Pape Yékini waxoon naa ko waxoon naa ko neewoon naa ko moytul jaay na ko bopp daan ko awaay dégg ko ndeysaan waaw ndeysaan ma ngay juub may félicité waat bu baax Ibou njaay Obali di encourager Pape Yékini Pape ni làmb noonu la def nga li nga waroon def bëre nga jox nga cër Ibou njaay waaye làmb moo demee noonu ñuy félicité waat bu baax Ibou njaay Obali parce que yaakaar naa lépp lu mu waroon def ci làmb ji keroog gis nañ ko indi na cosaan indi na culture indi na bàkk indi na bëre bu rëy boo xamante ni moom la ko amateur yi doon xaare ba am na ci ndam Pape dafa am erreur boo def ci biir bëre bi rek mooy ñëpp xam nañ ne xeex sa fort la mais ci biir xeex bi booy xeex sa adversaire da koy sedd cër cër bi nga ko waroon sedd mooy kenn du xeexee deux pieds munoo teg pied gos wala nga teg pied droite di dóor di laaw di yootu ñaari pieds di ñëw moo tax boo déséquilibré rek lay mën a jàpp daan la moo taxoon ëbbali jàpp la paquet la daan la loolu du dara ci làmb la bokk gën defaruwaat àndaat ak say mbokk àndaat ak say xarit làmb yaatu na ñeneen ñu ngi ci suuf mun ngaa bëri ñeneen ñu dul jeex ci làmb gën ñëwaat defet bi du dara Ibou njaay ëbbali moom a daan du gàcc ndax Ibou Ndiaye ku ne xam na ni ku mënul daan ci làmb amut mais gis nañ beneen concentration boo xamante ne mu ngi koy def ak sérieux ci boppam te yax Yaxya Jóob Yékini moo ne Ibou Ndiaye ëbbali nii mu nekkee su ko bàyyiwul dina doon sampion ci làmb Moustapha Guèye ne Ibou Ndiaye Obali nii mu nekk su ko bàyyiwul dina doon sampion ci làmb loolu nag du wax la boo xamante ne dañ la koy wax rek nga continuer laisser bras yooyu yaa ma gën a xam xaw nga gën a firndeel li tax ngay doon sampion boobu ñu leen di jaajëfal bu baax. dem nañ këram parcelle unité set fekk ko fa mu yeewu ñu xool ndam li mu am waxtaan ak moom ci lu bare bare waaye moom lii la ñu jot a wax ci bëre bi erreur bi Pape ni def ba mu daan ko. ñu dem xooli Obaly te dem te ay ca aadama arbitre bi sifflé euh, Pape Yékini féete càmmoñ mhm. Ibou Ndiaye féete ndijoor mhm. arbitre bi sifflé ñëwoon ma ci combat bi waaw dañoo di ko nuyu nag euh, champion boobu noonu Pape Yékini hmm. maa ngi koy nuyu bu baax di ko ñaanal jàmm hmm. xam nga di ko naan di courage mbër làmb ga rek parce que ñu ñëpp ñoo far Mm-hmm. jàmbaaru dafa utsi woon suñu borom moo ko daan may daf ko xañ bi pa may ma. waaw arbitre bi mu sifflé man ak moom dañoo taxaw. Yeah, parce que loolu lañ ma conseillé. Mm-hmm. waaw du ma ñëw rek saax saaxee sama combat parce démb da nga gis gis nga public bi topp sama ginnaaw. Mm-hmm. waaw stade bi fees dégg. kon aw ma woon droit def erreur. waaw parce que et puis tamit comme ni nga waxee dama bokk si ñi làmb yaakaar. bokk si ñi séeréer yaakaar. pour ñu taxawal leen suba. Mm-hmm. kon du yoon arbitre naan prip may ñëw di saax-saaxee combat bi damay jël sama temps teey mm-hmm. bi ma demee nag ba xam ne instant bii nii nii heure euh, dem jot na mm-hmm. ma dem xamoon naa ne bu ma ko jàppee rek xam bu jeex. non da ngeen di leetoo ma jékki-jékki gis Pape Yékini dóor la benn arrêt de droit. Mm-hmm. Mm-hmm. mu dal mm-hmm. mu dal la dalee nan la la def. waaw coup boobu dal na ma dóor na ma benn coup bu dal démb. la dóor ba gàllaaj yi nekkoon sa bopp bi sax dañu naaw. waaw daf ma dóor coup bu dal parce que Pape moom ku ko gis xam ne moom moom ji koy kàddu gi wayor moom foo mm. jaar di nga ñam. waaw te man ñam naa démb dóor na ma coup bu ba mu wóor ma ne coup bi dal na mais bu muy dal dal maa ngi si biir làmb ji. Mm. waaw parce damay entraîner Mm-hmm. damay entraîné te dama am résistance. Mm-hmm. waaw nit nag boo ko yabee daa fekk jàppante woogan rek. Mm-hmm. waaw moo tax bi coup bi dagee ma taxaw xam nga gën a gëyoo toog moom xam naa nag moom si biir xelam jàpp na ne kii dafa kaawoo wala coup bi ma ko dóor so yëg na ko. te coup bi ferejewu ma sax moo tax bi mu ñëwee moom tamit dóor naa ko fa benn coup. boo xoolee bi muy at bi muy song si di ñëw. coup gaa ko jox dama ko dóor coup ba mu siggi ma daw ramassé ko. Mm-hmm. waaw dama daw uh, dóor ko ku ba mu jóg ma paqueté ko braqué ko. Mm-hmm. waaw yéeg ci kawam. moom ban erreur la def yi Pape Yékini bu mu warul woon def. Mm-hmm. ba nga ba nga yegg ko fu sori foofu ba mën ko daan. non pourtant nag Pape defu erreur Pape bëri na. bi mu war def na erreur parce que gis naa ko muy xeexee deux pieds. parce que bi muy xeex. waaw ñaari tànk yëpp ñu ngi fekkante. moom bi mu xeex sax dara baaxu ji. moom laa lay wax. waaw moom Pape dèjà bi mu xeex dara baaxu ji Pape mm. Yékini. xam nga moom xeexam fu muy gën a fooree si xeexam. Hmm. mooy ngeen jàppante korante. moom hmm. foofu goxo bi day dox. Hmm. mais boo ko ba boo ko xañee googu bu ñëwee nii di dox di xeex. ay gauche droite yu muy dóor yooyu tegu ko fenn day sono boppam te du dagg. te man ay direct laa ko doon dóor. waaw man dama koy natt ba mu mot ma dóor ko direct arrière mel ni ku ko ragal. ba ko combat bi. waaw ba mu dem nag ba am confiance. pour ñëw ma dugal ko ku ramasser ko gaam bi jeex. Mhm. waaw benn moment gis naa arbitre bi euh, àtte di leen woo ci digg géew mhm. mu tàllal arbitre bi loxo ne ko da war a dem arbitre waaw kii dafa war a dem arbitre que mu ngi naaj ci affaire yooyu noonu naa ne moom dafa bëggoon mu bëgg a récupérer tuuti rek parce que foofu a a tax may dem arbitre mais deret génn na waaw tuuti rek deret génn mais du comme arbitre yi tey mais deret bi mu génnee dañu war a atte combat bi waaw donte tuuti la dañu war a atte waaw mais arbitre si jëm boppam tey mhm. bu ñu gisoon ne gi c'est méchant wala c'est dangereux dañuy arrêté combat bi waaw mais arbitre dañoo xool gisuñu affaire bi kii moom instant boobu noonu moom moo doon gis yooyu. Mhm. waaw xam nga rek dafa doon ut fu mu jafanu ko loolu mhm. kese la après nag si la ko arbitre bi nee noo bëreel. Mhm. si lañ bëri nag suñu borom may ma si kawam. bi nga daanee Pape Yékini moment bi nga ko daanee. yéeg ci kaw moment boobu lan nga yëg loo sentir sa xel ci lan la njëkk dem. sama xel si gëm njëkk a dem mooy ñi ma war a bëreel du kii rek du ki ma daan nii barki alxuraan sama xel si googu njëkk a dem ki ma daan nii nii. du ñuy laa war a bëreel. Hmm. moo tax nag bi ma ko daanee ba pare ma dem ñëw samp jël sama dënn samp ko si digg géew bi. Hmm. laaj ponkal gi. ponkal yi ñooy ñan. ponkal gi mooy ñu fi ne parce que yow jéeg xam nga ne samay morom duñ ma jël. non ñan ñooy sa moroom ñoo xam ne war nañ laa mën a jël. waaw man diggante ay Balla Gaye Bombardier. non gaa yooyu noonu c'est tëtël ëbbale xalaat. cuuj day xam lekkam. <laughs> Bombardier Balla Gaye duñu bëri ak da ngay wax say nattaangoo mais bu tax duñu bëreeg man. waaw parce que dañu la raw ci làmb fi ñu toll tolloo fa. moo yow affaire bi léegi nekkatu làmb ji léegi business yaa ngi encaissé comme vingt millions wala quinze millions. déggoo ma de ñoom dañu encaissé dañu encaissé cent millions. man ma encaissé vingt millions sama vingt millions yooyu man dinaa si préparé wu ba mun ngeen daan ak seen cent millions yooyu. loolu moom ci kanam la loolu moom mu ngi ñëw ci kanam. moo sa adversaire nii actuellement. ñoo xamante ne bu leen promoteur bi woon wala waa rent DKR seen prochaine journée bëgg a ëbbali mu bëreel leen. ñan lay doon. non sama morom du samay morom yow xam nga ne samay morom tey amul sama benn morom buy ñëw dugg seen biir kër ne avance gi mu ngi nii moom ngaa indi gars yi duñ ma jël. jërëjëf ñu koy jaajëfal bu baax moom Ibou Ndiaye Obeugy ci dem googu ñu demoon këram jëli ko fekk ko fa ndeysaan mu mu seede ay combat seede yu rafet ci adversaire am Pape Yékini làmb noonu la da ngeen a bokk li nga xamante ni mooy géew bi rek waaye du ngeen ay noonu dégg naa ko mu wax benn wax boo xamante ne vraiment Euh, wax bu ma tuuse la waaye moom xam na man xam naa wax na ci Pape Yékini lu rafet a rafet te loolu mooy làmb ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi. Euh, ginnaaw loolu dañuy dem ci combat spécial bi doxoon ci diggante Eumeu Sène Junior ak kalmanduur Ndour boobu moo nekkoon sama combat ndax demoon naa jële Kalma Ndour jëli naa Eumeu seen ku ci nekk am na lu mu jot a wax dañuy dem xooli combat bi su ko defee ñu dellu siwaat 2021 arène nationale rent DKR production Eumeu Sène Kalmu Ndour xeex ba commencé nañ dinañ xeex door mu daan mbaa doom Kalmu Ndour Eumeu Sène baa jil gis nga li ma la wax ñi dañuy ñëw rek dal na amul round d'observation amu ca dal na dañuy xeex maa door ci bëre lay jeexee de baa jil ci bëre lay jeexee ci bëre lay jeex joxe wet gi njool kenn njool kenn ko jox wet baa njool kenn du ko jox wet bàyyi jili du lii mu def wet bi daan na maay moom dama naan ko génn ca ngi daw Kalmu Ndour ko jàpp sori na dina daan wala déet Ama daan na ko Ama Sène daan na Kalmu Ndour Ama Sène Junior daan na Kalmu Ndour Ama Sène daan na Kalmu Ndour daan na ko ndeysaan Kalmu ko doon forcé Eumeu Sène daan ko. jërëjëf mbokk yi gis ngeen combat boobu doxoon ci diggante Calme ak Eumeu Sène Junior Calme ci yow laay njëkkee amaa ma ñëw ci Eumeu Sène yaakaar naa da jël Eumeu Sène waaye xamoo ko waaye da jël Eumeu Sène jël nga ko ngir bëgg a bëre mais xamoo ki nga jël parce que yaakaar naa boo xamoon Eumeu Sène façon bëre bi nga bëre doo ko bëreek moom làmb na bu ñu nee mbër day wor. wor bi ci digg géew la mbër li muy wax signature ak li muy wax ci diggu géew du doon benn te yow li nga waxoon ci signature bi moom nga bëggoon indi ci biir géew bi te làmb du demee noonu ndax gis nañ ci biir songo bi yéen ñaar ci biir léewtoo bi nga commencé xeex bi nga doon wax te da nga ne ma woon ama seen ñemewumaa xool ci bët loolu nga gëm moo tax bi nga dawee xeex mu dóor la coup boo xamante ne coup dal la coup boobu daanaka mun naa ne moo la génnee làmb ci coup boobu nga recevoir ci Eumeu Sène bokk na ci li yàq sa làmb tey bëre nga ci yàlla suñu borom dogal na vraiment yaa ngi doon tànte benn action boo xamante ni bu roon kenn du wax lan moo tax nga tenter ko parce làmb na yaakaar naa bu erreur amul jël du am tànk boobu nga doon yootu ci Eumeu Sène Eumeu Sène dafa bëre wane ni carrément euh, bàyyi na la ak làmb ji ba yàlla may ko ndam Eumeu Sène maa ngi koy félicité bu baax a baax a baax xale la boo xamante ni vraiment gis nañ retard bi mu retardoon ci làmb wane na ni du ñii laa war a bëreel. gis naa ci moom état de forme boo xamante ni macha allah combat bi jox na ko cër bi mu dugg see ci làmb ji xam nga ni kii dafa bëgg bis bi waaye sédd na adversaire am cër ñu koy félicité bu baax di ko ñaanal ndam li mu jikko li mu bëgg ci làmb yàlla defal ko ci lu kawe njortam. di ko félicité waat bu baax di wax ni laaj na booy Niang ak euh, Yékini Junior Boy Niang mu ngi ci contrat parce que yaakaar naa ku war a bëreeg Tapha jóge ca war a bëreeg Balla Gaye Eumeu Sène Junior mënu xaar mais moom ak Yékini Junior combat bu neex la Eumeu Sène Junior Yékini Junior ñaari junior yi dañoo war a bëre kenn génn Yékini Junior bu dee yaa may seetaan ku ci nekk dëgtal na la adversaire nga ni doo bëreek ñoom wala ñooñu da nga leen a xeeb mais Eumeu Sène junior yéen ñaar jaadu na combat bu neex la euh, te yaakaar naa ne làmb mun naa ubbi seen làmb yéen ñaar ñëpp. ginnaaw loolu bi Eumeu Sène amee ndam dem nañ këram seeti ko gis ni mu toogee ak ay mbokkam ak ay njëgëñaaleem waaye wax na wax boo xamante ni ci Calme Ndour loolu lañ doon xaar ci Eumeu Sène nee na bi ma bëreek moom ba pare bi mu xëyee moom moom ma njëkk a woo félicité ma ma encouragé ko ñaanal ko beneen yoon bu amee combat te amul suñu waa écrit yàlla may ko ndam loolu mooy làmp Calme Ndour def na vraiment geste sportif parce que tamit boo nekkee nit ngeen bëre mu daan la du gàcce nga woo ko jël sa téléphone félicité ko mu encouragé la nga continuer waat nekk ci leneen ñu dem dem nañ kër Ama Sène Euh, dégtal ko dañuy dem wan leen li nga xamante ni jot na cee wax tuuti rek su ko defee ñu dellu siwaat ay ca ñu dem kër ama seen te ñëw combat bi arbitre bi dafa sifflé kan mu dóor féete càmmoñ wala boog mu wan ma ginnaaw mhm. nga jàkkaarloo ñun mhm. bi arbitre bi sifflé yéen ñaar mën nga ma expliquer nan ngeen bëri waaw arbitre bi dafa sifflé man ak moom hmm. ñu lewtoo lewtoo waat mu jàpp suma loxo bi bu baax sax hmm. waaw man tamit mu bëgg mu bàyyi sama loxo ma dóor ko turaat mu bàyyi. a mel ni lu a mel fi mu jàpp dafa baax. waaw dafa jàpp bu da ko doon damm da ko jàpp nag. non ku am ngëb la dafa am ngëb rek moo tax mu jàpp loxo bi bu baax dafa am ngëb. Hmm. léegi dafa ba pare dafa hmm. hmm. am ngëb macha allah. mu jàppee ma bëgg mu bàyyi tamit ma dóor ko mu bàyyi tamit faywaat turaat ma dugal gauche mu mu ñëwaat dugalaat turaatam mu dugalaatee droit tam lañ mu jàppaat sama loxo ma dóor ko door bu dal mu bàyyi ñëw bëri si. Hmm. épingle ñëw jàpp ba dëgër. daw kali sama sama deuxième pied bi. Hmm. deuxième pied bi mu kal ma ko dèjà moom day perte équilibre. Hmm. parce que pied bi mu kal dèjà nekkatu fa. ngelaw dong la fay fekk. ma pivoté ci kaw noonu la pivoté waaw. ba moom bi ngeen yegg teer dafa mel ni moom moo la gën a jiitu moo moo forcé action bi mais moom moo la gën a jiitu ci suuf. waaw moom laa lay wax ni moom tey jii dafa mel ne nit nga mbal nga war a dóor bal rek mbal dóor si air bi. Mhm. déboîtement xaj na fa. Mhm. baaraam ci bakkan xaj na fa. Mhm. lu ne xaj na fa. parce que mbal. loolu moom mooy li ma la moom dafa kal sama deuxième tànk. mais moom mbalu ka bi mu ko kalee tànk bi laal na. mais daa mbal finalement daa kal ma rocc ko léegi tànk ba libre. yow bal bi muy ñëw xam nga ni bal bi nga koy dóor. loolu la nga def sa xel. mais da mbal. te xam nga da ngay dóor bal bal bi ñëwee yaa ngi nii. Hmm. yow jàpp koy dóor la ma bal ah, loolu moom moo ma jaaxal. waaw ah, lan loolu moo jaaxal man <laughs> mais ah. ma jékki-jékki moom gis ci biir xeex bi ngeen jàmmaarloo. Kalmandu hmm. dafa ñëwoon bëgg la agressé. Hmm. mais bi mu dóoree da ko dóor. arrêt de droit bi nga ko dóor dafa dal trop. est-ce que du loolu moo tax mu mu mu wàccee xeex bi moo doon def. waaw bokk dañ doon wax combat bi moom. maanaam am na ñu doon wax naan xeex bi suma avantage la bëre bi suma avantage la. Hmm. bëre bi avantage am la moom. Hmm. man dama indi ci làmb ji ne man lépp sama avantage la muy bëre di xeex. yow que man toll ma fu may fu ma mbër bu nga xamante ni maa la jiitu ci làmb nga war ma ñëw jàngal bëre. non hmm. tollatuma foofu ci làmb. peut-être ma bëreeg ci ne nag mu nax ma ci làmb mun naa am. parce que saa suñu xëyee dañuy jàng ci làmb. làmb kenn mënu koo wóobal. roi des arènes nax nañ ko fi daan ko. Mm-hmm. mbër mu të daanu ndox ñu ko fi daan mm-hmm. kon làmb fu mu ko bokkal mm-hmm. léegi dañoo ñëw rek def li nga xamante ni moo nekk ci ñun bàyyi xel ne tout le temps ñun ñi dañuy xeex dañuy bëre ñi nit ñi di wax naan jël favori bëre bi jox ko peut-être dañuy jàpp ne ñooñu dañ ñoo xam parce que suñu bàmb dañuy bëri waaw c'est-à-dire da di dañuy fay moom xayuñ ko kay. non buñ dóor sa loxo yi kay foo ko dóor buntu feeñ. moo allah <laughs> bi buntu feeñ la. buñ dóorom dañ. <laughs> yaa ngi ree boos. non <laughs> mais bu jékki-jékki. gis nga daan ko. ndaysaan nga xool ko beneen bët. bu bokkut ak bëtu mbégte. na xool nga ko lu yàgg jékki-jékki kott ko lan nga doon wax moom ak bët bi nga ko doon xool ban bët la. démb maa ngi nuyu waa Rente DKR di leen ñaanal jàmm. Hmm. di leen lu kaw seen jot ñoom ñëpp. Hmm. may wax ne démb damay wax ak kenn si ñoom ma waxee ko wax. ma ne ko dama ko yërëm ko daanee ma xoolee bëri dama ko yërëm. naa hmm. la ci xas ma xool ko yërëm ko ma ko ma mel gis sama ma ne ko baal ma ak. jéggal la. mun nga amaat suba ndam. Mhm. loolu laa ko. nga ne ko baal ma àq jéggal ma mun nga am suba ndam. moom mu tontu la na non tontu moom pare boobu parce que émission bi jàpp na ko. Mhm. mais après ndeysaan defal na lu rafet ñëw si man xam ñu saafonte. Mhm. ñu doon ñu yëpp ñëw ak waa Ikirem. parce que aw ma teg kenn xar waaw ma leen di ñaanal ñoom ñëpp jàmm. nga wax na ma njëkk ko wax sa plateau. Hmm. ndax mu ndur war a mu denc suba. Hmm. vraiment waaw félicité moom moo jël téléphone am woo def bu rafet def. Hmm. geste bu noble. geste bu noble ma touché sax man. parce que yaakaaruma ko woon. mais vraiment lu ko rafetlu la. léegi bi ma jógee géej la ma woo téléphone ndeysaan. encouragé ma. li ma wax ne waxal sa gars yi yëpp xam nga maa leen di siyaar. wax wax bu rafet. dama ma delloo ko la même chose jox ko wàccuwaayam. ko ñu lañ day doon poos mbaa mu dooni kàddu mm-hmm. mbaa mu doon bët mm-hmm. xam naa loolu teranga àdduna nen bët mm-hmm. waaw ma jox ko xaar ko ci ay kàddu ba ma sëkk ma saw ko coono ñaanalaat ko jàmm comme ni ma koy ñaanalee ñëpp encore une fois mooy wax ne ñun ay donga lañ ñun mënuñoo weesu dong te donga la ñuy doon ba keroog ñuy dee soxlawul leen lu ak dong waaw dañuy sant Serapal saa su ne lu Serapal amul bëgguñu waaw ñun dañuy euh, ñu ñëw ci grand combat bi bis bi nga xamante ni ñëpp ko doon xaar muy ko Rell ak Marley combat bi jàpp nañ ko ba jours ji combat bi avorté ci diggante bi ñoom ñaar ku ci nekk ànd ak ngorom ànd ak diditeem dem préparer ji ñëwaat te déggoo ci benn yoon Marley wax wala Eumeu Sène wala euh, Kalmundur mbaa ki nga ne mooy nekk réel te loolu lañ doon xaar ci ñoom ñu leen di félicité bu baax a baax kon dañ leen di wan grand combat bi doxoon ci diggante Marley ak nekk réel su ko defee ñu dellu si waat ay ca nañ leen dem te ñëw. 4 minutes Marley nekk réel nekk réel la avancé na dox ci kawam door na Marley jëlee na ko lu ñu nar moytul tànk bi nekk réel Marley takk na ko nekk réel Marley jàppante nañ Marley caxabal na ko lu mu nar. ñoxor yëll bañ na Ousseyn ñoom ñaar jàppante nañ ñoxor yëll maarle caxabalaat na déet ñoxor yëll bañ na da koy pataxal fooram la da lay dóor tànk maytul maarle ma ngi koy forcé oh eh, maarle bul forcé forcé bi nga koy forcé di ci génnam déet doole Ousseyn mu ngi koy forcé bàyyi ji li doole feeñ Ousseyn mu ngi koy biij bàyyi ji li doole feeñ maarle ma ngay bëre bàyyi ji li doole feeñ ñoxor yëll am na doole doole feeñ na ñoxor yëll fiñ ko jàpp na mais est-ce que dina ci génn. combat bi attan na boppam bàyyi ji damay bañ a wax waaye combat bi attan na boppam. ndeysaan Marley fi mu ko yegg sori na. mais Marley dem joxe dafa bari. est-ce que tolluwaay su ma nekkoréel bi day la bi Marley bi bi nekkoréel gëj a bëre. Ah. booy bi ñu fàtte ko. ndeysaan bii daan na ko. Marley ma ngay forcer. nekkoréel daa baaxul. force bi baaxul. nekkoréel la. yegg sori buñ dàqali ko moo problème. tegal na ko daan wala déet. daan na ko maa la daan na daan na ko réel. maa la daan na ko réel daan na ko réel daan na ko réel. Oh! Oh! ay géejawaay yëngu na waay waay xale la géejawaay ay ay eh, géejawaay def nañ quatre sorties quatre victoires ay eh, tey géejawaay jël na ndam li Euh, ñuy félicité waat bu baax Marley gis ngeen combat bi am na ndam ci kaw ne ko réel mais daan ak manière Marley dafa wan ni ne ko réel man maa la gën a bëgg combat bi. arbitre bi def na prip ne ko réel bëgg a xeex Marley xañ ko xeex bi daw jàpp ko te Marley dafa am benn bëre boo xamante ni mu ngi ci moom dama koy gis ci Balla Gaye 2 di ko gis ci Marley Marley bu xësee jàpp du bàyyi fi ak action bi jeexul du bàyyi loolu dañ ko ciy félicité bu baax ndax yaakaar naa ne fi ko fi mu yegg Néckoré la bu rëccoon Néckoré la mun na gën a amaat sens ci bi wala mun na gën a am confiance ci combat bi mais teewul mu ngi def Néckoré la di didi teewul mu ngi def ba tey moo tax mbër moom bu dëkkee def rek li mu bëgg li wolof naan xëcc bu dagul dikk li mu bëgg tôt ou tard day ñëw moo tax ne ko réel la bëri na bëre bu rëy vraiment mais maar la keroog moom la yàlla suñu borom dogal ni moom moo waroon daan am na ndam bu rëy euh, ñu koy félicité bu baax di ko ñaanal moom it ndam li yàlla na ko jik di encouragé ne ko réel di ko wax ni ko ni ko réel c'est normal boo gëjee bëre boo ñëwee ci làmb faw nga perte repère perte nga repère naam xëy na doo ko nangu parce que benn moment yaa ngi ci digg géew bi sa entraîneur sa coach mu ngi lay woo ne la waroo taxaw rek noonu ñu yëkkati sa loxo wala nga def ay mouvement nga ne ko noo garaawul parce que boobu yaakaar naa ki ngay bëreel dafa mel ni dong koo umpale muy Marley erreur nag bu amul defet du am def nga erreur ci biir bëre bi ba Marley yegg la fu sori nga génn ci jàpp ni mënulaa daan mu wër la ndomba ci biir action bi bi ngay génn di tàqalikoo noonu la la daanee ñu leen di féliciter bu baax a baax baax di féliciter mbër yi nga xam ne jot nañ cee bëri am ndam di encourager xale yi nga xamante ne ñoom it jot nañ cee bëri te ñàkk ñu leen di encourager bu baax a baax a baax. ginnaaw loolu dem nañ stade jël ki nga xamante ni moo waral bis bi muy Alain <laughs> kaañ naa ko fa sax ne ko ale bi nga gisee stade bi fees xalaa stade yi am nga xaalis waaye nee na ma déedéet parce que porte yu ci bëree bëri daf koo maye ñu koy féliciter bu baax parce que lii importance bi mooy nga tëgg làmb mu réussir te vraiment làmb ju réussir na amateur yi wuy si nañ képp koo xamante ni da dund làmb sa xol sedd na dañuy dem ci Alain bi nga xamante ni moo organisé woon bis bi su ko defee ñu dem dégtal leen li ñu jot a jël moom ci stade bi su ko defee ñu dellu siwaat booy dama may jàmm booy. daa mel ni xaalis dugg na de. man xaalis ñun xaalis daf ñu dugal ci làmb. lan moo la a bëgg. xam nga loolu ba pare nga ma koy laaj. mais tey dañu gis stade bi nu mu mel mu mel ni sénégalais yi. namoon nañu làmb ko maye. xanaa loolu moo gën a ti neex. lu tax loolu. neex ñu. genn wàll bi yëpp dañ ko li ngeen investir ci may nañu deux mille cinq cent billets kañ loolu ci bëggati nekk jàpp mais ni gisee mbër yi ñu dugg si bëre wane jom wane fulo convaincre na la nga tëggaat beneen suuf mais ñun de façon am nañu ay mbër yu des faw ñu tëggaat te dañu tëggaat sax kool bu sap diggante moom euh, xale bi nga xamante ne mooy Pape Thiam Pape Thiam dafa am blessure ban journée ngeen ko fas yéene yóbbuwaat bu bu tane rek bu tanewul fii ak ay février mars mënuñu xaarloo kool tamit dañu waxante dëgg am na yoo xam ne xel koy mottali su boobaa soit dañu utali kool adversaire wala ñu bàyyi ko mu ñu libéré ko mënuñ ko téye nii tamit am na loo xam ne même bu ñu ko CNG mayee ñu ñun duñ ko nangu def su boobaa dinañ ko utal adversaire kóol bu Bour Sine nangu woon dañ la doon boole rek mais Bour Sine bëggul non Bour Sine Zarko la <laughs> ah mbër bu nekk ak xam naa ne yaa ngi yaa ngi doxaat yeneen combat yoo xam ne dégg naa yaa ngi ci suuf di rumandaat pour mu sotti nga joxe avance waaw. Ah. waaw yu dàq yi. non làmb moom ay combinaison la rek mën na neex mën na bañ a neex da ngay jéem a def le maximum pour nga am lu neex li rek. ñi fas yéene bëre daan actuellement di nga leen wutal beneen adversaire wala. daan ak rek. ah waaw <laughs> mbokk yi di leen wax ni rek jàngat làmb la euh, incha allahu rabbi dinañ ci ñëw ak yeneen innovation yu bees des fois ñu dalal benn magum làmb mu ñëw ma indil ko combat bi mu décortiquer ma ko wax ma komba bi ban faay la mbër mi def bañ daan ko. kee ba adversaire bi njàmbaar bi mu wane ba daan ko ku ci nekk mën na fee toog mën naa fi dalal ministre mën naa fi dalal musicien mën naa fi dalal joueur mën naa fi dalal ku ne parce que jàngat làmb moom yaakaar naa yaatu la ah dama ree la sama xarit bi xam la ni di la yëngu te di la leex mbokk yi ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax di leen jox dig daje rek di leen tàggu ci tàggoo bi nga xamante ni moo dul tàqali ko ndax sama wax ji daa gëj a ñëw doolay jën ndox doolay woykat public waaye dooley wasaare làmb yéen la suñu mbokk internet yi di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah ak jàngat làmb bàyyi jiili aadama sëñ Basiru soxna faa ak képp koo xamante ni mu ngi wasaare làmb wasaare TV di leen jaajëfal ok